de waaw procès bi du njaay rax ma ak sëriñ bu boo koy waxee noonu da ngay faussé acca procès bi njaay ma contre la mairie de Kaolack la njaay raxma ak ay population ñëwee sing sing sing sing dégg nga waaw njaay raxma daa jël seeni suuf jaay ko dama si yoon sëñ bu ci biir loolu dafa am benn immeuble boo xam ne mairie Kaolack moo ko moom. Mhm. Ndiaye Rahma jaayaale ko. Hmm? Ndiaye Rahma de mën na jaay nag. yaa ngi dégg. Hmm. jël ko jaay ko hypothéqué ko jël si ay xaalis. dégg nga. Hmm. sëriñ Mboup ñëw nekk deux mille vingt deux maire. maire xool ay këyit. ne waaw yéen immeuble yi ngeen wax nii ñun miiri Kaolack ñoo ko moom dégg nga wax ano hmm. ano immeuble bi gaa yi njaay ma jaay na ko hmm? mu ne leen loolu nag lu tax def action en justice démb juge bi ne ko prescription maanaam biñ ko jaayee ak tey loolu passé na kon <laughs> njaay rax ma mucc na <laughs> waaye yow léegi dafa mel yow nga am sa tool fële Vous avez 10 ans 15 ans mais je suis ko mais am droit de porter plainte voilà. Hmm. nga peut porter plainte waa non dix ans yi na ko hmm. est-ce que est-ce que jugement boobu en na xel. de de. non non eh. Hmm. non bu fi appréciation juge bilan.

pendant douze ans hmm. jabaram la Mariama Sarr waaw nekkoon fi ministre de fonction waaw bu ko gëm bu hmm. ko gëm xanaa xëy boo dindee période bi Mariama Sarr nekkee maire de Kaolack rek xanaa kon war ngaa topp waa ji parce que foofu kon complicité mun na fa am ndax Mariama Sarr bañ ko convoqué mënuñ yëgu ko waaw yow léegi yow yow yow yow tiit yi kon sëriñ boobu rek mun jàng xalaas yow ñu jox la mairie bi pendant laps de temps bu gudd. waaw man yow mosoo gis dara seen mbëb ñëw ñaari at gis ko. mu gës def action judiciaire. oui kon Mariama Sarr fan la nekkoon xanaa moom daa trahir la mairie de Kaolack fan la nekkoon wala daanul lire document yi wala da koo gis gëmm ko moom avec la complicité avec. Mhm. ñu ne nañ door affaire bi. c'est ce qui s'est passé li war am nag mooy bu demee ci cassation cour suprême mhm. mu rétablir le droit delloo ci droit waa miiri Kaolack ak waa quartier Sing Sing nga xam ni ñoom parce boobu seen suuf soosu Ndiaye Rahma da ko dóor comprendre la mhm. lu tegul fenn mu dem jugement gars yi di ay artifice ay xawma lan ak lan c' est pas normal. si si mbir yoon la. waaw dañ xaar cour suprême donc. Mhm. Euh, maa ngi lay gërëm wax loolu naa la tey de maa ngi lay gërëm di la wax nga jox dig daje ak Sénégal yi di doon seetaan ndax tey yëngal naa la trop trop trop waaye yaay yàlloo yëngal cee Doudou Coulibaly mm. ci bi altini mm. ci àllarba ak mm. ajjuma tàggatoo ak Sénégal yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. di hmm. sant ñëpp. ah di am lu rek di di teew fii. Hmm. li ma wax na japp naa du kamil du bible. gis-gis la sama xalaat la. Hmm. sama gis-gis la. te chaque fois su ma taxaw di wax sama gis-gis danaa def lu tout pour wane ni sama gis-gis la man et que waxuma ni ñëpp dañ ko wara japp lolu moy humidité hmm deux nga deuxièmement deuxièmement moy essayer le plus possible xam nga direct la. Mhm. direct dafa mit le plus possible wax ak respect manam wodd kaddu yi. wax te ki ngay sétane doko blessé. doko blessé effectivement. japp ni man sumay wax. damay wax ak conviction ba nga xam ne boo deful attention ñu waa ji dafa mer fekk demul noonu mat man awma lu may mer mm-hmm. man damay gërëm suñu borom dégg nga ci baax mm-hmm. man nee naa la que Macky Sall mooy président ab laay wàdd mooy président que mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye mooy président ak suba keneen mooy nekk président diggantaan Njaay sama yoon nekku sa yoon newu ci de ndax man liggéey lu ma gouvernement dégg nga ci wax mm-hmm. te suñu borom mu ngi may suturaal mm-hmm. mu bu baax man maa mosul man maa mënul gis benn sénégalais boo xam ñii naa la bu iñaana la ku la xool xam ne sànni wut ci loo waaw déggoo lu ma la wax mm-hmm. man maa gisul sénégalais bu may ñi balay balay iñaane balay iñaane wa mais nak ñu bëri ñoo naan waa ku bali yow du jof fal gis nga bu yeboo sénégalais nañu man man sama digënté ak Aïssatou Diop Fall doomu aadama xaju si yàgg na du tay degoma ma fi, xam nga man mosuma wax lu mel non man am naa man am naa façon relation bu ne mais gis nga nit danga koy jàppee nu mu la jàppee bëri lañuy toog ci seen biir commentaire di def ay bàkkaar bàkkaar de baaxul waaw bàkkaar daal tuub moo gën man man man